policier na ngeen fàttale ko yawma ma ruh wal malaikatu safan la yatakalamuna ila man asinu lahu rahman wa xaala sawaaba taalika yowmal haqq waaw na ngeen kenn ku nek ci yéen que bu soye musulman ou chrétien na nga xamne nyukap dina am bis bo xamne ñun ñepp dinañu ben place jinne yi wër ñu malaaka yi wër leen kàpp te benn kàddu rek mooy jub karo da ngeen wax ba na kenn ku nekk ci yéen bàyyi xaltine ci ne tu seras tout seul dans ta aussi de te actes kon ñuy rafetal na ñuy rafetal parce que suñu borom moo wax ci sóoratu Huud ni inna laaha naka man yàlla laa yu diihu du ma neenal mukk ajaral muxsiniina jëfi waay rafetal waaye moo waxaat ci même saar bi ca kaw ni ina laaha laa yahdi kaydal xaa'idiina ina laaha naka man yàlla laa yahdi du jokk mukk kaydal xaa'idiina jëfi jëfi way way way kuy def luy toj toji ay toj toj wala workat nañ génne ci suñu biir tout ce qui est contraire à l'éthique tout ce qui est contraire à la morale tout ce qui est contraire à ce que euh, ilmu nafs lépp loo xam ne dafa contraire à la sociologie ilmu nafs la sociologie en arabe nekk nag baynal xawf war rajaa ci diggante ragal yalla rek ak yaakar la parce que lo def tay bu ëlëgé di ko netali bis bu nek ngeen dégg ñu naan diw sama xaritu ben bakken la sama loolu wax bu yàqu la sa jëf rek moy sa xaritu ben bakken parce que buñ la yëkëté di lo duggal ci bamël mom rek moy nangu jitu nga nga door sa ci kawam kon nañ rafetal jëfini nañ rafetal jëfin yi parce que alay salaaw bi ahkamul hakimina lépp loo fi doxal tey bu ëllëgee dinañ la àtte ca sa jëf joojee kon nañ jéem a rafetal diggante yi depuis un certain temps la sociologie policière a beaucoup évolué il y a des choses qu'on ne nous reproche plus mais ñaw le nag du teree daggi paaka bis bu ne maa ngi leen di romb Thiès di dem ak a ñëw parfois vous me voyez parfois vous ne me voyez pas yéen ñëpp mën ngeen a waat xam ni du ma gëj ci waawan yéen ñëpp bu ngeen ma gisee ak bu ngeen ma gisul mais am na yoo xam ne bu amoon danaa seere droit fii woy wala ma woo kilifa gi wax ko mais sincèrement gis naa ci yéen njub moom laa liiran bien vrai que yéen a ngi yori yat mais man njub gi xool parce que erreur yëpp man yu ñu man a rectifier la comme yu ñu man a rectifier la nag man du ma sonal non no non jamais jamais te yàlla daf ñu bind nag def ñu njiit dénkuñu leen pour ñu am nu ñu taxawee ci seen kanam taxaw bi ñu war a taxaw seen kanam taxawaayu kilifa la taxawaay bi ñu war a taxaw ci yéen mooy privilégier le sens de l'humain dans les rapports entre police et population loolu moo ñu war kon na ngeen gën a góor góor gën a soññaat seen bopp ku gis sa moroom def lu jaaduwul boo ko mënee dindi dindi ko boo ko mën la dindi am na benn xarit ci biir groupe bi demal ci moom mu dindi ko yéen a mën a rectifier parce que yéen a yendu yéen ay fanaan ñun on est à un beneen niveau bu ngeen rectifiantee du ñu ci jot mais bu ngeen waxantewul dëgg bis bu ñu ciy jot day fekk mu metti waaw te ñun ñëpp dañ jaar ci ndaw comme yéen kon war nañ leen mën a comprendre mm-hmm. mais nag on a toujours accepté de se remettre en cause d'avoir un esprit critique la critique et l'autocritique bu devez l'ériger en règle de conduite avec le temps viendra tout à qui s'y attend comme le disent les Ivoiriens 呃哦，对。